que suñu statut hôpital sax centre de santé la mais ministre bi ci boppam daf ma wax ni ma du centre de santé de de santé la c'est le ministre elle-même qui me l'a dit qui l'a dit au président de la république léegi bi mu waxee loolu tey ma ne ko mais président ñun nous comptons plus de cent mille habitants président de la appel communauté Layène rek waroon na tax ñu defaral Cambérène hôpital bu adéquat. assainissement aussi waxoon nañ ci ak président de la république ñu toll tey jii nii boo xoolee émissaire bi en 2013 waxoon nañ ni dinañ ko délocaliser dinañ ko délocaliser avant autoroute bi VDN bi di jàll mais VDN bi tey mi ngi dem un deux Cambérène ba tey kenn assainiru ko. assainissement Cambérène dañ koy yàkkamti lu ñu soxal la tey su tawee soo demee ci buntu xabru yonte yàlla Isaa mi tax ñun ñu dëkk ci dëkk bi dafay taa boo demee ci buntu almeeri ci margo bi foofu aussi dafay taa à l'angle waa Coxolaan quartier boobu aussi dafay taa kon fii li problème mu assainissement daf dafa posé wu lu ñu war a def rapidement la mu gaaw pour mën a génn situation boobu noonu suñu jigéen dañuy yenu ay paan ak ay soo di suuri géej bu ñuy dem géej tey tali bi su paree fan la ñuy jaar amuñu ñu mën a jaar dañu bëgg balaa tali bi di jàll balaa coow di jib ñu ñëw fexe defaral ñu loolu en plus ma profité ci bi muy problème mu pêcheurs yi yi ñoom fi ñu doon teg seen gaal tali bi dafa jaar te kenn doo démangé wu leen te loolu mën na indi problème parce que sedd bi mu ngi ñëw waame bi mu ngi commencé tey fii tali bi nekk foofu la ñuy aj seen gaal nañu leen woo ñu toog ñu waxtaan xool problème bi exactement lan la ñu saafara ko nu mu gën a gaawe balaa muy wees parce que problème balaa muy jib te nga xam ni mën na indi coow boobu nga jug dem dox ko wax ko ngir mu fay luñ ci am ñu jël bu doon suñu sago président de la république bàyyi xel lii ma ko wax mu woo nit ñi ñëw ñu ñëw Cambérène xool lee problème santé éducation environnement ak li nga xamante ni si ni moom mooy suñu VDN bii nii. bëgg nañ mu wax ci parce que bëgguñu problème am vraiment CEM Cambérène rek gis nañu cinquante 152 élèves yoo xamante ni dañ leen exclure li ko waral mooy manque d' encadrement pourquoi parce que soo xoolee fi ñu toll nii Cambérène euh, li xale yi joué léegi problème bi ñu am mooy su fekkente ni si ni yow sa waajur du ñu ay cadre rek pour nga génn si éducation bu yomb parce que doo am ku la encadré ouvrier bu xëyee li muy ci rek mooy gagne-pain am léegi nag tey ñu bëggoon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fexe encadré xale yi ñun à notre nom fexe dimbali leen ci Cambérène sama diwaan ñëw jël leen ba ñu doon quelqu'un dans ce pays. ku mel ni Ba tey moom mooy patron Dakar loolu la pour APR mais ñooñu waruñu leen woo ñuy am limite di yem Parcelles Assainies Parcelles Assainies Cambérène moom moo ko jur tey ñooñu waruñu xaar sax. ñu leen di woo ci dara lu xew Cambérène dañu war a ñëw participer en tant que ministre parce que un ministre su fekkee yow sa local rek nga yem nekkatoo ministre kon ministre localité boobu nga mais su fekkente ne nag ministre nga pour tous les sénégalais sénégalais bu la war nga mën a am ñu la fa représenter sax même yow soo mënul ñëw nga ñëw jàppale leen ñu mën a génn ci situation yi nii